dikkati naa loo ci mënti waxit senegal fi mu toll nii nguur gi mi ngi nii ci mbedd mi nii ku ne mën na koo for waaye ku sëgg-sëgg bu jekki te baax lool mën nga koo for tribune yéen a naan man opposition bi moom lenn moo leen ko mën a may mooy ñu daal boole seen doole xam nga opposition bi bu amee ñaar ba ñett ci candidat loole mën na ko juralug ndam ndax tey mi ngi jaamaarloo akub nguur soo xam ne kañu teg ci bopp bi ne moo leen di jang-jangeel seenug bato rango seenub drapeau daanaka ñoom seen biir ñu bëri bëgguñu ko askan wi ci boppam goxe système bi goqiwaale nguur gi kon forcément dañuy goqiwaale candidat nguur gi kon ma ne la nguur gaa ngi nii ci tali bi di taxawaal de ku ne mën nga koo for de te opposition bi seen sanitàccu mi ngi nii bu ñu fexee mani la fexe ba président Macky Sall dafi manœuvre sikundiig sikundiig def leen jinne jommal na la ba nguur gi fi mu toll nii rëcc opposition bi daañu ko rëcc wala turbine naan leen booloo leen mooy dëgg su ngeen booloowul day dootu leen ko defati ndax nii la leen nguur gi di rëccee nii wal fu ko di jee naan ci réew moo xam ne kumba am nday la kumba amut nday xol yi di gën a nag di gën a tëf-tëf Bougane ma doon def ab tournée politique dañoo daal di taxawal tournéem ba ca Kousanaar ne ko yow Gueye doo jàll l'observateur nante Gueye moom ko tere ndékki mu tere laa añ ma nga leen defal ab interview d'attaque boo xam ne maar day taali yéeni kaay futur média bi naan man gannaaw ba ñu taxawalee caravane am moom Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp nee na nag never mind xam nga président Macky Sall lii nga xam ne mi ngi ñu koy teg ñun opposition bi rawatina tey jii mu teg ñu ko ñun waa gëm sa bopp ne suñu tournée bii di antu ma ne la président Macky Sall never mind Bougane naan faale wuñu lii xoqatal ñu ngeen si jublu lijjanti wuñ ko la ñuy teree dem ba fa mbaxana doonee benn la ñu gisul 24 heures yéen kaay naan maan en tout cas nguurug sàll ma ngay teree doxal bugaan géy dani l'indépendant yéen kaay naan kon moo taxit waa gëm sa bopp ren ji lu gouvernement Macky Sall dégg ñoo leen ko wax léefo yéen kaay naan kumba am nday kumba amul nday dee ne ci réew mi Amadou Ba moom fu mu jaar ñu laral ko tapis rouge ne ko yaa baax yaay yaa baax baay jàllal amadu waaye ña nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi rek ñu ngi leen di tuñ tuñal barki Dembo Ndiaye Mali gàkku la Dembo Ndiaye bàyyi Bougane Gueye Dany la gannaaw ba muy dem massaw ñi nga xam ne ñoo nekk ca xosanto ñu faatal leen ñaar ci seeni doom waa gëm sa bopp roñ-roñ jugee ndakaaru ne dañuy dem massaw yi seen ñoñ ña nekk foofee gouvernement gu senegal ne leen du ngeen ak le témoin yéen kaay naan leen moo ne day waxtu woowu moom Amadou ci boppam ma ngay déroulé préfet ak policier ak gendarme mel ni nag ñu ànd ak Benno Bokk Yaakaar l'opposition bi fu mu jaar ñu ne ko du fi dem nag ba leen di gaze sax faf nag waxtu woowu Amadou ba mi nga xam ne ne ñu mooy candidat Benno Bokk Yaakaar moom ma ngay doxal Dakar naan maan ma foo ne Amadou Kay ma nga lënkoo ak Ndoye Bane ñuy doxal nice le témoin naan kon waxtu waaw nag ñuy kale ay opposant l'info yéene kaay naan kon jaaral ci tur wi Bougane Gueye Dany ak mouvement gëm sa bopp kay la ñu daal di téye niki démb ne leen seen seeti waa Koussanar gee massawu leen du ngeen ak l'observateur naan waaye Bougane nag leen koy jox wel naan leen danaa àgg ci jàmm wala yéen nguurug xeex bay metti waaye di ngeen ma bàyyi wala xam ngeen fu tooñ yéen du jàmm fa fanaan yéen ko tey maag yéen ba géej gi Pastef am seen diggante nguurug Sénégal ñaaw na ba nuppi Pastef naan na gën a ñaaw waaye jàmm moom daa ngeen ñu ko may ci réew mi direct news ne ma en tout cas président Macky Sall moom daanaka jaxan na ma dong lañ ko dundaloowul keroog ca New York moom Sall tere na opposition bi wax ci réew mi gaay a jagat jagatee président Macky Sall ba bitim réew tay la ko yakk ko keteme ñaari weer Benno Bokk Yaakaar doxal ci réewum Sénégal barki Dembo Ndiaye ñaari weer ya mel ni juróomi at ci ñoom New ma la mel ni sabar gu tas sa démocratie laa ni la gars ñi ngi wane bitim réew ne na muy doxee ci réew mi baaxul image ba baaxul waxtu wa nga xam ne Amadou Ba ma ngay campagne ci réew mi ñu ne keneen du campagne ci réew mi xale ya dem New York di fi tëñ bu président Macky Sall bii ba mar taali le tey mooy yéen kaay ko xale yi Pastef yemuñu ci président Macky Sall de dañoo dem ba ci Paris fa Youssou Ndour doon tëggee di fa seen Sonko namm nañ la Sonko namm nañ la daal di koy sonkorisé Sonko leen de fi mu toll yi ñetti maire yu Pastef daañu àgg teer Sonko dina ñàkk meereem maire bu Kër Massar ñàkk meeram maire bu Parcelles dina ñàkk meereem waxtu woo critique yéen kaay naan maan Amadou Ba de daanaka takkandeer la te ku ko woteelil jàppal ni takkandeer ngay woteel réew mi ko di jee naan Abdoulaye Daouda Diallo ànd na ci candidature am bii de waaye ña nga xam ne nag ñoo ànd ak Abdoulaye Daouda Diallo ñoo ca àndul xeex baa nga nekk ca biir ña nekk ca Podor moom fas suñu yéene benn yoon daal di woteel Amadou Ba le point yéen naan maan mouvement feem mi nga xam ne nag dafa daal daal di tafu ci coalition républicaine sàmm suñum na ñuy xam leen nag ànd nan ci tabuk Amadou Ba bi naan kon yor nga valeur yi ñuy falee ab njiitum réew yor nga principe yow Amadou Ba sa leadership deetu kon naa table ci réew mi kon Amadou Ba mën ngaa doxal a tout moment waa grand place naan kon doxal à tout moment kay bu mu teree ñeneen ñi doxal Sénégal daal kumba am nday kumba amul nday moo fi ne ñu waxati ndax waxtu wa nga xam ne moom Amadou daal ma ngay doxal nam ko safee ña ngay téye waa gëm sa bopp ak seenu cortège doon dem ca xosanto ngir massaw ña fa faatu gëm sa bopp jàpp ne président Macky Sall njëkkewu ko ci man te du ko mujjee ci man ndax fii manifester gun ci woote ñu lànk askan wi boo demee nemmeeku leen sax ñun la du fii te waxtu woo waa gëm sa bopp ne Amadou Ba kay mooy campagne soobu ci réew mi di daggat baatu askan wi te kenn téyewu ko tribune yéen kaay naan kon waxtu woo askan waa ngeeg ay jàmbat yoo xam ni maar day taali ay milliards def nañ ko ci biir ndox mi waaye ba tey ma ne la fi mu toll nii askan wi ci boppam ñu ngi xuus ci mbënd inondation yi fan yi mi ngi tukkal Sénégal yéen a kaay bi dee média bi waxtu woowu ma ni la feebar fi faju doon doom doom bu góor ci réew mi gaz ba nga xam ne kalaate woon na ci derkele juróom benneelu bakkan ba daal dinay rot vox populi naan kon ñàkkum paj mu ñoŋ day moo waral lii laas naan kon waxtu woo tension artérielle ne nan mi ngi jeexal askan wi ñetti mag yoo jël kenn ka am na tension te boo moytul faatu gi dina gën a sakkan ci réew mi le soleil yéen kaay naan kon fi mu toll nii day sibiru bi am ci réew mi daal nay jaaxal lool fajkat yi libération yéen kaay naan man li am ci réew mi te doy waar nañ ko wax xale bu jigéen bii man la kidnapping am bii la la daal di suwe ab film jàppalu boppam jël